daaru baaxum ca kanam di initiative boo xam ne ndawi daaru baaxum ko jël bëgg faa dundal lislaam bu baax a baax a baax waaye am yéene jëmale dëkk ba ca kanam xam ngeen ne lu baax nag du yem rek ci ab àpp waaye nag lu baax amul yem waay ba tax na ñoom nag ñett yi nga xam ne moom la njëkk cité ci daaru baaxum ca kanam bëgg ko jëmale ca kanam leneen lu ñu ca toftal toftal ko ca lu ci mel ne case de santé ak jàkka ja fa nekk ak daaray alxuraan ja xam ngeen ñuy defare ay mag te mooy jaar ci ndaw ba jóge ci nekk magum lislaam muy daara alxuraan xam ngeen ne ab dëkk mënta ñàkk barabu fajukaay ab dëkk mënta ñàkk fu ñuy jaamoo yàlla waaye ab dëkk mënta ñàkk fu ñuy defare ay ndaw ba tax na ñett yi nga xam ne moom lañ njëkk a cité ci daaru baaxum ca nag taxawal daara ji ba mu taxaw am yéene gën a jëmmal kaas bi am yéene gën a yeesalaat néegub yàlla ba fa nekk tax na ñu sos daaru baaxum ca kanam xam ngeen ne nag lu baax amul yem waaye amul ab ab waaye am na ab tàmbali ci ñett yi la ñu bëgg ko cee tàmbalee bu ñu demee ba ca kanam leneen luy judd juddoo ca daaru baax ca kanam di initiative boo xam ne yomb na jàppandi la fépp fu taalibe mën nekk rek ñu lay woo liggéey boobu li ci dale weer wu dee ñu ngi laaj cotisation am na ay numéro whatsapp am na groupe whatsapp am na numéro orange money yoo xam ne foofu nga koy jaar te it ubbil nañ ko liggéey boobu numéro orange money nag bi ci njëkk mooy numéro Thierno Diak Thierno Diak numéro orange money 77 013 05 43 77 013 05 43 mooy numéro maam Thierno Diak bu dee numéro Dame Diak da ngay def 77 872 17 62 77 872 17 62 bu dee numéro maam Thierno Mbaye ca Daaru Baaxum da ngay def 77 516 44 49 49 77 516 44 49 ak daaru baax mu ca kanam daal jaamu yàlla la de.